23h jot ci radio Futur Média mbokk yi bismillah ci xibaar njabootu Bara Samb di doomu Sénégal googu nga xamante ni fàttali nañ ko daal di fàtt ni ki ajuma gi ci États-Unis laata nag ñu ko jébal boromam ni ki démb tey ji nag RFM daal na dem ba foofu euh, jàkkaarloog ay waajuram ca Sicap Liberté 1 ñoom nag ab naqar lañu dëkkee ñaanda seek Amadou Sabar Ba li dégg rek mooy sa doom boom nañ loolu laa dégg xaw ma ci leneen lëbit waa na ma le 9 maa ngi koy euh, wax sa jotuma. fajaxu sandi bi soxna Fatin jaw dootu ko fàtte benn yoon moom moomee nekk way juru baaxa Samb moom mi nga xam ne dañ koo boom ca Atlanta fële ci États-Unis ci guddig ajuma jàpp sandi. Wa nag njaboot ñu nekk àll bi nekk Atlanta nga tëdd ba guddi ba fajar ñu woo la ne katal nañ ko kon loolu dinaa metti noonu laa yëg mbir mi loolu rek ma xëy nag ànd ak samay mbokk ak samay kii ñu toog fii defale ma ko wante nag ñu sant julit yëpp ak taalibe yëpp. gannaaw ba xabaar bi gi këram gi nekk ci liberté 1 nit ñaa ngi di ñëw ngir jaale ci jamono yoo xam ne na sax mbas mi wàcc fii ci Sénégal maanaam coronavirus muy wéy di nangu njaal yi ci téléphone bi lenn rek moo ko ci metti gisul benn autorité gouvernement bu Sénégal bu taxawu wala sax woo ko téléphone mu metti lu ko lool. ñu ngi woo damaa wuyu ba mënatoo maa wuyu kon damay sant yàlla. dégguma dara man xamaguma dara. damaa jëlale gouvernement Sénégal mais kenn ku ma ne nangam. ah xëy na nag boo da nga ci xam daan waaye soxna Fatim Diaw mi ngi sant bu baax communauté mouride bi nga xam ne ne moo nekk ca Atlanta ci seen taxawaay ba ñu mën a jébbal doomam bi ki nga xam ne ne mooy borom bi waa daayira ba Ibadu Rahman nga xam ne waa kër sëñ Tuubaa yi ñoo leen fasam ñu taxaw yu mel nii ñoom ñëpp ñu ànd ak fondation bi julli bi taxaw sama doom bañ jël sama doom teg ko seen loxo ñu jullee ko defar ko yóbbu ko ci cimetière ñu ñaanal ko Bara Samb mi ngi amoon ci lu tolloog fanweeri at ak benn te doon dund fële ci Atlanta ci États-Unis ak magam bi di Mor Ngom ñu koy woowee vieux fi mu toll nii nag lépp li nga xam ne ne moo soxal enquête wi famille bi di xam la ne xamaguñ ci dara Amadou Sabarba jërëjëf Gorox mom moom di secrétaire général bu union nationale des transporteurs routiers mom nak ma ngay naxarlu euh, ci taxaway yenn ci ay natangom yi nga xamanteni dal ñi ngay def nak sutul nonu donte sax jamono gi dañoo dal di interdire dal euh, ñi euh, jóge ci bërëb dem ci bërepp taxna na fi toll ni gis nañ dal amna ñenn ci ñom yi nga xamanteni ñi ngay violer code koku ndax seen biir auto yoy lé dañ cey faral léeg di ci yeb ay nit yi nga xamanteni dal dañ leen jële ci dëkk yobul leen ci benen dëkk ñu dal di wax itam ci doomi Sénégal yi nga xamante ni ñoom ci ay jafe-jafe lañ nekk jamono gi dal di bloqué euh, ci euh, frontière bu Mauritanie euh, boobu ak léegi nag ñu ngay def seen kéem kattan ngir fexe kon bokk nañ jógee ci jafe-jafe boobu nga xamante ñu koy dudd waaye yëf yi ba tey antuwul ba tax na daal ñu ngay ñaan wàllu ci état bu Sénégal ci biti réew président bu Turquie di Recep Tayyip Erdogan moom nag dal na gàntal démission kii di ministre de l'intérieur mi nga xamante ni moom dafa kon bokk démissionné woon ni ki tey ji gannaaw ba mu am confirmé yenn ci ay kàddu yi nga xam te ne yëkkati woon na ko ba tax na foofu sax euh, ca Turquie ñu bëri daal di ànd ak ñàqare daal di daw ci li nga xam te ne moo di supermarché yeeg yu ni mel ngir daal di wut ravitaillement loolu nag gannaaw ba mu ko gisee nag am ñu si bëri ci nga xam te ne daal ñoo yeewoo foofu la ca Turquie déggoon du ko moom mi di euh, ministre de l' intérieur loolu nag moo taxoon kon bokk mu daal di tekkil boppam ndombal tànkam waaye daal euh, ca gannaaw go njiit réew mi di Recep Tayyip Erdogan daal dina gàntal lu ni mel kon mbokk mbokk yi fi lañ ko daal di yemale xibaar yi fi rek rek incha allah Mamadou Mbaye Garmi dana fi daal di ñëw toog ak yéen ci seen émission mémoire du Sénégal jërë ngeen jëf